Ya mukrim ada fi jaran kana zara Ya mayan akhadi min khablu zara Kat dine jadi kat bu bago xamne Allah ñu tax saqafi ya tabi'u li daira ko xat bu xidma tamay commission culturelle yu top ci daira bi moko ye add màggal gi li mu wóolu mooy gaaral téere bu bees bi nga xam ne day doon xam ne xëy na génn ko te mooy téere bi ngeen di gis téere bi nag ñu ngi euh, nga xam ne moom la ñu am fii ci biir jumaa ji kon noonu la ko tudd amalul muxaadaraat ar ramadaaniyya muy unwaan boo xam ne bu ngeen ko seetloo ëmb na lu bari wund na lu bari bari wund na ne kon muhaadara yooyu ñuy wax ay anaasir la ay éléments yu wuute la ay masala yu xeetoo la waaye ay mawduuaat la yoo xam ne yu bari ay taxasusaat la bu ci nekk lu benn tomb du ñaar waaye ay tomb yu baree bari waaye nag jëmut fenn waaye ci ay bunt yu baree bari bu jëm ci ay euh, tomb yu fam fàcce ci la jëm bii ñuy wax booy xool xët yi te mooy page yi boo ci boolewut li ñu tuddee fëtras bi ak muqaddimaat yi ñu ngi toll ci ñetti téeméeri xët ak ñeent fukk ak juróom-ñett te mooy trois cent quarante-huit page boo ci boolee fëtras bi nag ak muqaddimaat yi dafay jox trois cent soixante-cinq page téere bi li mu làmboo gannaaw boo ci génnee muqaddimaat ak mumahidaat te mooy rek xeeti introduction yi yooyu am na lu tolloog ñaar fukki mawduu ak juróom ñaar fukki poñ ak juróom yoo xam ne am na ci wax ca wàllu fiq am na ci yoo xam ne ay ubbee la yooyu am na ci loo xam ne ci tasawuf lay wax am na ci loo xam ne ci murid gi lay wax waaye nag mu amaat yeneen jugé yu wuute yoo xam ne dafay jëm ci wàllu social yi jëm wàllu économie yi jëm wàllu éducation waaye yi jëm ci wàllu culture effort bu mag bii nag bu rëy bii liggéey bu mag bii ñu ngi ñu ngi ko dajale ci diggante ramadan 1438 te muy 2017 ba ci ramadanu 1442 te muy 2021 kon mën nañoo wax ne téere bi liggéey yi ci daje ñu ngi daje ci lu tolloog diiru juróomi at muy téere boo xam ne moom la daayira bi génne waat gannaaw njëkkee gannaaw bu njëkkoon a génne beneen téere am na isbaar bu ko jiit woon téere bu njëkkoon a génne ñu ngi génne woon ci atum juróom ci waaye nag amoon na ci ak ubbee ak i fataawa amoon na ci lu tolloog euh, juróom benn fukk ak juróom téere booba ñi lañ ko tëggee woon am na ci bunt dañ ko dañ ko tuddee woon moo ko wax ci wàllu fiq am na ci loo xam ne dañ ko tuddee woon fatawa moo ko en fiq kooku fi la ci xaddada al islam te mooy lay fatwa ak i ak i tomb yoo xam ne day wax ci àq yi ak yelleen yi nga xam ne daf ko wane ñetteelu ñetteelu koñ ko dañ ko tuddee woon moo ko en suufiya muridiya te mooy ay tomb yoo xam ne day wax ci tasawuf ak ci murid ñeenteel ba ñu tëkkee woon ko masail mutafarriqa te mooy ay masala bu wute téere bu njëkk ba page yi mu ngi tolloon ci deux cent cinquante huit waaye téere bu bees bii comme ni ma ko waxee kon day ëppee bu njëkk ba lu tolloo quatre vingt dix huit page daanaka du jógee téeméeri xët ëppee na ko téere bu lu ci nekk nag lan moo ci nekk mën nañoo wax ne li ci nekk mën nañu koo seetle ci juróomi ponk ponk bu njëkk bi mooy liy présenté téere bi ta daf cee dugg li ñu tudd ay li ñu tudd ay remerciement te mooy ashukr wa taqdir daf cee dugg ni ñuy présenté teru dañuy mooy li ñu tudd ak taqdim waaye tamit daf cee dugg benn mën sa mooy benn tënk boo xam ne dañu ko def ngir xam ne day waaye daf cee dugg benn muqaddima boo xam ne euh, commission culturelle bi moo ko defal ñaareelu ponk bi day jëm ci fiq ñu tudde ko al-mihwaru fiqhi ñetteelu ponk bi jëm ci ay ubbee ak i tontu laaj ñu tudde ko mihwarul fatawa ñeenteel ponk bi jëm ci am mixwaru suuf yi ak murid yi te mooy lu aju ci wàllu tasawuf ak murid yi juróomeel ponk bi ñu tuddee ko mawduaat mutanawia te mooy ay ponk yu wuute lan moo tax ñu taalif dafa sas euh, kuréel la dénk wàllu xam-xam ay sas yu baree bari mu bokk ca sas yooyu nag yëngul ci wàllu xam-xam mu gisoon ne ngir liggéeyal xam-xam ci tusaare dana baax lool conférence yu am solo yi nga xam ne ñu koy organiser nit ñi di ko mën a dégg di ko mën a seetaan mu eh, fexe ba may bañ mën koo jot ñu mën koo bind mën koo yaxal xam nañ ne loolu bu ñu fekkee xam nañ dàkk ak bëggu sëriñ bi waaye tamit dimbal la ci ñi nga xam ne ñooy jàng di gëstu ba noppi bëgg ay référence yoo xam ne ci lañu dem loolu ci dàkk bëgg bëggu sëñ bi nag moom moo waxoon ne nawal xalbu min ni basaay min yaqulu da taatu wa taami lillahi tahi موحد دعا منادي وأقلامي لخدمته قول الوراء الذي قد كان يبدأ موحد يقرب تأليف العلوم الذين أت إلى الناس مطعمه فؤادي به عفا waaye moo waxoon ne tawaalifu saadaati mujaddidu naasixan li wajhi alladi ala midaadi wa miqrami kon koo xam ne jëmu ji xam-xam ak yeesal ko ak yaatal ko moo ko taxoon na jóg yaakaar naa képp koo xam ne dafa koy liggéeyam bàyyi xel wàllu yooyu mën a ñàkk ci sa waaye ñaareelu jubluwaay bi mooy gis nañ ne taalif ak dajale xam-xam ci ak kàggu wala ak téere dafa bokk ci li nga xam ne dafa ñàkk ci jamono ji dafa bokk ci priorité yi loolu nag li koy dëggal mooy sëriñ bi radiyallahu anhu dafa waxoon ne xam-xam ñaari xeet xam-xam bi ñu jàngale ak bi ñu taalif daal di wax nañ bi ca ëpp njariñ nag mooy bi ñu taalif ndax lan mu ne ni tuuli baqaa yi ndax moo ci gën a mën a yàgg ne tekke ne képp koo xam ne yàlla dogal na nga am man manu taalibe te nga xam ne boo taalifee suñu borom dana ci def barke bi mooy lan mooy ñëpp danañ ko bëgg te danañ ci jariñu dafa war ci yow nga bañ a bàyyi taalif mooy sañu doo ñàkk taalif fa waajibun alayhi allaa yatruka daal ne képp koo xam ne da ngay jàngale te gis ne li ngay jàngale suñu borom mi ngi def barke mooy dina képp koo xam ne jàng gisee ba ko dana ci jaare ji topp suma ma suñu ngi sallallahu alayhi wa sallam war def na ci yow nga bañ a bàyyi jàngale sëñ bi teg ca nag ne rubba rajulin futiha lahu fi kaza wala yuftah lahu fi kaza bariwaana koo xam ne mën naa taalif waaye mënta jàngale bariwaana koo xam ne mën naa jàngale waaye mënta taalif ñëpp xam nañ ne nag moom radiyallahu anhu mane na ci ñaari boor waaye nag gis nañ ak dundam ci ak dundam fi ko bi mayoon lam gënoon a tarkiis dëgg-dëgg mooy di daay ak doon sax daana jàng ci ay méthode yu wute téere yi ñu bëggee faram fàcce li ci nekk lépp mën nañu koo tënk ci tomb yi di ñëw comme ni ma leen ko waxee diggante 1438 ba 1442 juróomi at yooyu ci lañ ko dajale am na ñaar fukki tomb ak juróom yooyu yëpp nag ñii la demee bu dee ponk bu njëkk bi ñetti poñ lañ ci indi bi ci njëkk mooy fegg wi fekk téere bi te moom li ñu wane rek mooy bayaanal asaasiya mooy téere bu dul dugg fan nañ ko moore kañ nañ ko mool kan moo rek al ixraaju fan yi ak couverture bi ak ñaari couverture yi tege daanaka loolu mooy waajihal bi ba ca tege bi te loolu ñett rek lañ a ràññee mooy ñi nga xam ne ñoo taxawoon liggéey bi daan ci def ay bu ñu mën ko dajale waaye ñi nga xam ne ñoo leen ci doon jàppale te mooy ndaw yi daay dem xatam xidma waaye dañuy sant ak gërëm bu baax ci kilifa bu mag bi nga xam ne moom moo dox wax ci euh, finance joxe financement bañ mën a euh, monter bi te loolu incha allah xëy na Cheikh Abdou Khadre dina ci dee si waat kon remerciement boobu ni ngi nekk ci paasu juróomeel bi mooy ci bu loolu jàllee am na lu ñu tuddee ak taqdim mooy présentation bi loolu mu ngi nekk ci diggante xëtu juróom ak juróom benn kii ko def mooy Serigne Amady Moussou te jubluwaay bi mooy leeral liggéey bi wane njariñ li mu am ci biir ak ci biti waaye tamit lim reflété bu baax ni mu wanee liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma ca bañ ko sosee ba léegi te liggéey bu weesuwul ci arriba fi xidmati Cheikh Xadim mooy taxaw temm ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ak sàmmal ko maam ji te loolu nag dara jiitu te liggéeyal xam-xam nga xam ne jàpp nañ ni képp kuy liggéeyal bi liggéeyal ko ci xam-xam moo war a jiitu gannaaw loolu ñaanal na ñëpp képp koo ne taxaw na ci ba euh, naaj bi sotti te mooy téere bi waaye tamit woo na ñëpp ci képp wax xam ne am na ci ay gis-gis mu leeral ko bu ko defee ñu mën cee ñoreel ci liggéey ñeenteelu koñ moo nekk ci diggante xëtu juróom-ñaar ba juróom-ñeent safha set ak neuf moom ak tënk la ci leeral lan mooy daayira boobu dama xëy ma moom sosoo ba léegi ca mars 1994 yan mooy ay liggéeyam. ak euh, lan la ci jot a sottal moo xam liggéey yaaju ci wàllu diine wala yaaju ci wàllu culture wala yaaju ci wàllu communication wala yaaju ci wàllu social bu loolu jàllee am na muqaddima boo xam ne nag commission culturelle bi moo ko def ñu nekk diggante xëtu onze ak douze fukk ak benn ba fukk nga xam ne moo jiite commission bi daf doon leeral rek iftaar jamaa yi ñu def ñu ndogu yi lan moo ko indi ci ban contexte la juddoo ak yëpp conférence yi ñu fi def nan la juddoo ak ban njariñ la am ci ndog yeeg koor yi ak it nañu nañu xalaate ci daal di téere bi waaye ban méthode lañ ko jaaree ak nu ñu ko rëbbee waaye nag sant ak gërëm ñëpp kon loolu mooy ponk bu njëkk daanaka ay présentation ñaareelu ponk bu nañu tuddee al mihwaru fiqh moom moo nekk diggante sotu 15 ba 155. booy xool page yi yëpp ñu ngi toll ci 155 page téeméeri xët ak juróom fukk ak juróom mixwar la maanaam ponk bunt la boo xam ne am na ay tomb yu nekk yu baree baree bare yoo xam ne asxaaba al muxaadaroon yi fi teew ñoo ko def damay danaa tudd euh, tomb bu ne ak ka ko def ak page bu nekk téere bi ak booy xool page yi mu def ñaata page tomb bi ci njëkk mooy jubluwaayu charia ak ni ñu ko war a sàmmee ak lan ban relation la am ak àtte yi maqaasidu shari maqaasidu shari wa daruratu muraatiha fi tashri al ahkam docteur Abdou Lahad Sall moo ko def mi ngi nekk ci diggante page 17 ba 40 booy xool xët ya moo nga toll ci 23 jaamu yàlla mooy lan dëgg-dëgg ak yan jeex la ma am al ibadatu xaqiqatuha wa athaaruha ki ko def mooy inspecteur Serigne Mountakha Diatara mi ngi nekk ci téere bi diggante page 41 ba 54 mi ngi toll ci 13 page compa ci ni ko charia gisee ak libaas bi man buuri charia al islami ki ko def mooy Serigne Cheikh Mouhamed Mahfouz bi nga xam ne moom waxoon fi léegi page yi ci téere bi mi ngi toll ci diggante 55 ba 58 mi ngi toll ci 4 page julli biir ak bit asalaatu shaklan wa madmunan ki ko def mooy Cheikh Habibullahi Jatara ñu ngi toll ci téere bi diggante 59 ba 76 booy xool ci ay page ñu ngi toll ci 17. weeru weeru koor am mooy ab àtteem ak teggi yi am ki ko def mooy Serigne Cheikh Naa Bousso Moustapha Baaxel ñu ngi toll ci diggante 77 ba 83 toll ci euh, juróom-ñaari xët julli ki añ moom ki ko def mooy Serigne Massamba Bousso Abdourahmane ñu ngi toll ci. téere bi diggante 84 ba 90 ñu toll ci juróom-ñaari xët li nga xam ne dëgganul ñu jaay ko ki ko def mooy al oustaz al imam sëñ Mbacke Abdourahman ci téere bi ñu ngi toll ci diggante 91 ba 95 toll ci ñeenti xët bokk ànd liggéey ci ni ko masbi ma ni jàngale xeet yi mu am ak at yi mu am ki ko def mooy Abdoul Khadim Moussa Alhaji Cheikh ñu toll ci xët yi 96 ba cent 137 ñu ngi toll ci ñeent fukki bët ak benn atte ci lislaam ak ni ko lislaam tëral li ko def mooy inspecteur Cheikh Ahmad Mbacke Niang ci xëti euh, téere bi ñu ngi toll 138 ba 145 ñu ngi toll ci 8 page njabar lan mooy ab atteem ak nan lay feeñe ak yan gàllankoor ko mën a indi ci téere bi boo koy xool ñu ngi toll ci diggante 146 ba 155 ki ko def mooy docteur Xaadim Silla yëpp mu ngi toll ci neuf page kon loolu mooy ñaareelu ponk ñetteelu ponk bi moom lañ tuddee mihwaru fatawa moo nekk ci téere bi diggante 157 ba 177 mu ngi toll ci 19 page mihwar bii nag muy ponk bi ay tontu laaj la ci masala yoo xam ne dafa aju ci tafsir ak ci qiraa ak ci xadis ak ci fiq ak usulu fiq ak ci pas-pas ak ci tasawuf ak ci jubba ak yoonu murit waaye nag am ñeneen masala yu bees yoo xam ne yu baree baree bari yii mosoon na fee am yii mosu fee am yooyu yëpp borom xam nañu tontu nañu liñ ci laaj ci ñu dajale ci téere bi ñu ngi toll ci juróom fukki laaj wala boog juróom fukki tontu ak ñeent ñetti borom xam-xam yi ñoo ko def sëriñ Cheikh Bousso Hassan def na ci fukki fatwa ak juróom ñu ngi toll ci téere bi diggante cent cinquante neuf ba cent soixante cinq di sat sitt saf euh, safaxaat sept page sëriñ Mbàkke Abdu Rahmaan def na ci moom it euh, quinze fatwa te mooy fukki fatwa juróom ñu ngi toll ci euh, juróomi page moo nekk ci téere bi diggante xëtu cent soixante six ba cent soixante sept sëriñ Cheikh Maam Mbàkke Abdu def na ci vingt quatre fatwa te mooy toll ci téere bi cent soixante onze ba cent soixante dix di juróom-ñaari xët bu loolu jàllee beneen ponk bi muy bu ñeenteel bi moo aju nag ci al mexwaru suufi al murid yi mooy li aju ci tasawuf ak ci murid boo koy xool ci bi mi ngi nekk ci diggante xëtu 179 ba 286 ay page am yëpp xët yëpp boo xoolee mu lay jox 107 page téeméeri page ak juróom-ñaar muy nag bunt bu am solo ndax làmm na ay jàngat ak i tomb yu am ci doomi mu tasawuf ak murid yi jàngat nañ ci ay dégg-dégg yoo xam ne dañ ko war a si waat jàngat nañ ci ay yoo xam ne dafa aajoo taxqiq ak détaillé waaye jàngat nañ ci mi sëriñ bi mooy kan dëgg-dëgg ak li mu woote woon ban relation la amal iman ak lislaam ak ihsaan jàng nañ ci bu baax a baax yan mooy priorité sëriñ bu baax ak ci yan la gënoon a concentré wu ci ñuy yar di defar waaye yoon nan la gën a jëme kanam ci biir ak ci biti ak yan défi wala boog yan dëkk moo koy dëkk ak it yan lañ ci am mooy yan saafara lañ ci am mixwar bi mooy bunt bi juróom-ñaari mawduwaat moo ci nekk yu mat yu mag yoo xam ne faram fàcc nañ ko gëstu ko bu baax a baax a baax euh, tomb bu njëkk bi ñu ngi tudd ak tajdiidu fi diini mafhumuhu wa majaalaat yeesal ci diine mooy lan ak ci yan bunt lañ ko mën a def loolu ki ko def mooy sëriñ Afia Ñang mu nekk ci page su 181 ba 186 tolloo juróom-benni xët ba ja tege mooy Cheikh Ahmad Bamba al Abdul Xadim raditu billahi rabban loolu ki ko def mooy sëriñ Xadim Mbàkke Moustapha Xafsa mu ngi tolloog 187 ba 195 tolloog 9 safa 9 safaxaat te mooy juróom-ñeenti xët tom ba ja tegewaat mooy Cheikhul Xadim wal Islam sëriñ Tuubaa Islam ki ko def mooy sëñ Ahmad Mbacke Mourtada sëñ Ahmad Darou Mouhty moo nekk ci diggante page 196 ba 216 tolloo 20 page amaat beneen tomb boo xam ne ñu ngi ko tuddee mafahim fii xaajatin ila tasxiix al mubaaya al idn al xidma ay déggiin yoo xam ne dañ dañ cee war a taxawaat wérlu wat lan mooy jaayante dëgg-dëgg lan mooy digal dëgg-dëgg ak lan mooy liggéeyal sëriñ tomb boobu sëñ Afia sëñ Afia ñoom ko def mi ngi tolloog diggante 217 ak 229 tolloog 12 euh, safha te mooy 12 page yan mooy priorité sëñ Touba al awlawiyaat ba def Cheikh Khadim loolu ab tomb la boo xam ne al mudir sëñ Fallou sa Thiam moo ko def boo ko xool ci téere bi mu ngi tolloog 230 ba 245 tolloog 15 page. ñaan ay tegginam ak i jeexitam al mudir moo ko def Ahmad Samb al Azraqi moo tolloog 246 ba 265 tolloog 16 page moodu moodu yi murid yi seeni jafe-jafe ak i saafaram al jaadiyatul muridiyya mashaakilu wa hulul loolu ki ko def mooy Abu Madiana Chouaïb bu Kébé mu ngi tolloog 263 ci téere bi ba 286 nekk ñaar fukki xët ak ñett juróomeelu ponk te mooy bi ci mujj moom lañ tuddee mawduaat mutanawwi'a te mooy ay tomb yu wuute xool ci téere bi yaa ngi koy fekk ci 297 ba 360 limu xëj ya juróom-ñaar fukk ak ñett 73 ay tomb la yu yoo xam ne dafa am ay ittijaahaat mutanawwi'a ay orientation yu wuute am ay jëmukaay yu wuute yoo xam ne dafay jàngal nit ki dëgg-dëgg ban relation am moo xam mu dund social bi ñëpp bokk wala ñi ko concerné moom kase wala moom ak waa kër waaye nan la mën a dijjantee mbiri diineem ak mbiri adduna loolu nag ñu jàngal ko indi ci ay saafara ak i solution yoo xam ne ñu ngi jibbe ci njàngaleem diine ak ci yoonu Sëriñ Tuubaa muy loo xam ne bu ñu ko jotee incha allah danañu am sens de daare ne damay taxee adduna ak àllaaxira mixwaar bi damay bunt bi am na euh, juróom-ñetti tomb juróom euh, juróom-ñetti tomb yoo xam ne yu am yuy wax ci diine ak ci dund bi ci jiitu mooy al ixtilaafu mafhumuhu wa asbaabuhu wa aadaabu wuute mooy lan dëgg-dëgg lan moo koy indi ak yan teggin lañ ci war a doxal su ko def mooy sëriñ Cheikh Maam Mbàkke Abdou ci téere mën nga xool ci ba 297 xët ya mën nga jàmm ban solo la am ci dund nit yi ak ci dund société bi ñu ko def mooy Serigne Mouhamad Xaban Mbacke mu Cheikh Mamadou Moustapha Xaadimu Rasuul boo koy xool ci téere yaa ngi koy fekk ci page 298 ba 306 xët ya mën a toll ci juróom ci daal ci jàmm ak ban a dëgëral ak si ni mu ko xaw a ki ko def mooy Serigne Moustapha Diop Ndar boo koy xool ci téere mën nga xool ci xëtu ñetti téeméer ak juróom-ñaar ba ca ñetti téeméer ak fukk ak ñett page la mën a ci set xam juróom-ñaar. xalaat yu bees yi dugg ci yu dugg si ci tasawuf wala ci yoonu murid ba noppi di ko maamu nan la ñuy mën a jàmmaamoo ak moom kay fa nu waajibu tayyaara fikri jël xaddaal loolu ki ko def mooy sëriñ Fallou Moussa Diem 314 ba 323 da nekk xët yi ñu nga toll ci 10 nos suñu mbir yan njariñ la am ak ni mu nekkee bu mun ta ñàkk loolu ki ko def mooy sëriñ Mbacke Abdourahmane ñu ngi toll ci 325 ba 331 nekk 7 page ay njonte yoo xam ne ñu ngi koy faral di def te ñu ngi bàyyi xel bu ñu yar ndaw ñi donc ki ko def mooy Serigne Fallou Sa Hassan ñu ngi toll ci 332 ba 341 toll ci page développement mooy lan ak lan moo ko mën a dëgëral ak ci yan anam lañ ko mën a defee loolu ki ko def mooy Serigne Sallou Sa Abdou Rahman ñu ngi toll 342 ba 352 tolloog euh, fukk fukki xët ak benn yi nga xam ne yëpp ko bokk ñu war koo sàmm ak naka lañ ko war a sàmmee moom Serigne Fadilou Sow xasan moo ko def ñu ngi tolloog ci téere bi 353 ba 360 booy ba xët yi ñu ngi lay jox kon daal lii mooy téere léegi nag mu des nag fëhrës boo xam ne dañ cee détaillé di nekk ci biir téere bi boobu mu ngi nekk ci diggante 361 ba 365 nekk 5 euh, page léegi téere yi nan lañ ko dajalee ak nan lañ ko taalif lañ na saxaafee bi te mooy kuréel yor wàllu xam-xam ngir dajale téere bi li ñu njëkk a def mooy dafa dajale ci yi nga xam ne moo jóge ci ñi nga xam ne ñoo doon def conférence dajale googu nag ab coono bu baree baree bare am na ci ndax daj jot ci dafa mel ne jot ci waxtaan te moo gën a yomb jot ci ab texte loolu nag ñu ngi lancé appel bu baax a baax di ko di ci soññ ñi ci sañ a soññ waaye di ko di ko di ko taataan ak yelwaan yi nga xam ne soññ leen soññ ci texte yi ñu fexe ba muy teel a yegsi ci suñu loxo bu ñu demee ba amuñu texte bu ñu ci toppee topp ba amuñu texte wala ki nga xam ne moo leen def xaabara bi moo leen def conférence bi dañu mënut a bind amul jot bi wala yu mel noonu dañuy sant kenn ci commission bi mu dem diglu ji waxtaan wa daa koy jéem a sotti bind ko ci arab bu ko bindee ba noppi nag daal koy joxaat ci ko waxtaane woon mu liir ko yër ko wéral ko ko defee ñu soog koo wér indi ko ci téere am na ay ndaw yu baree bari yu bokk ci commission culturelle bi ñoo xam ne ñu doon taxawee loolu bokk nañ ci sëriñ Abdou Moutalib Bousso mu sëriñ Alhaji Mumbe sëriñ Cheikh Ahmad Bousso mu sëriñ Abdou Asmaou sëriñ Mahamad Bousso mu sëriñ Fadil mu sëriñ Moutalib ak Cheikh Abdoulahad Cheikh Abdoulahi Lo ak imam Bousso Abdou Asmaou ñii ma wax ñooy ñi nga xam waxtaan yi nit di ko sotti di ko araabal bu ñu noppee daa koy soog a joxaat waxtaan ko am na lu tolloo juróom-ñaari waxtaan yoo xam ne digg nañ ko def ko lu mel noonu bu dee fatwaay nag daanaka yëpp moom noonu lañ ko def daanaka yëpp dañ koo diglu def bindal ndaw yi ma wax nag am na ci ñoo xam ne ñu ngi Tuubaa jamono ji di jàngale am na ci ñoo xam ne ña nga France di jàng am na ñu ñoo xam ne ña nga Koweït am na ci ñoo xam ne ña nga Tunis kon liggéey boobu moo jiitu mooy dajale mooy jël ko ci conférence yi bi da loolu moo gën a noppale moo gën a jàpp ni baneen bi mooy bindal ko sa bu loolu jàllee tamit aaya quraan aaya quraan yi ñoom ñoo ko doon def warsh ñoo toftale bunt yëpp ñoo ko wéral ki ko doon def mooy amul xaalis bi sax seet ñoo doon coordonné tamit ak ñi nga xam ne ñoo ko doon tasfiir ku mel ne suñu maam am bi waaye ñi nga xam ne ñoo ko doon moom laaj na bi it mooy commission bi mi ngi xalaat ci mu ñuy def ba génne téere bu njëkk ba tasaare ko ndax ñu bari ñu koy laaj ñi ngi xalaat bu baax a baax nu ñu def ba euh, liggéey bi di gën a gaaw di gën a mën a gën a gaaw ak génn gi ngi xalaat tamit bu ñu nu ñu def ba mën koo traduire ci français ak ci làkk wolof comme ni nga xam ne noonu lañu bind ci làkku yaaram ñi ngi xalaat tamit indi yeneen téere yoo xam ne dafay accompagner liggéeyu commission culturelle bi lu mel ne li aju ci wàllu formation bi am na sax ay kayit yoo ko wax ci loolu ak leqaam am na it yoo xam ne jot nañu koo bind muy wax ci wàllu euh, jullee néew ak jullee dem ñi ngi xalaat tamit bind téere boo xam ne dafay wax ci fiqhul masjid lu aju ci jàkka ak ñu ci yëngu waaye fi ñu jeexale mooy di sant ak di gërëm ñu képp koo xam ne rek taxaw na ci téere bi waaye di teeru bu baax a baax xalaat ci lépp loo xam ne day jëmale liggéey bi kanam di ko yaatal suñu bëgg-bëgg ñun ñëpp ñu am ngërëmu suñu Tuubaa te xam nañ ne bu ñu ko xamee mooy am nañ am nañ tawfiq suñu borom am nañ saanu bu daaray ni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا مكرم ضيفي جارا كان وزارا يا مايا أخادم من قبل أزارا